waaleykum salaam ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen balu suñu borom boole ñu jéggal waaw ñu it ñu lay fay bu baax a baax papa comme ni ñu ko xamee dugg nañ ci li nga xamante ni moom mooy safar bi te ku wax safar xel dem ci sunu maam sëriñ Touba. ku wax safar wax li nga xamante ni moom lañu ñu war a comporté woo fële ca bu ñu demee màggal ga ku wax safar wax lépp loo xamante ni moom mi nga xamante ni mi ngi doon dem ca tukkeem googu li nga xamante ni jàngale na ko ci safar tey ñu ñëw jàkkaarloo yoon nga am lenn loo xamante ni ko ci baaxee encore une fois ñu jàppandi ci. jërëjëf euh, euh, Amath euh, ci laaj ma laaj xam safar gi mooy. waajtaay bi mm-hmm. waajtaayu dem ci géej waajtaayu ñibbisi waajtaayu màggal bis bi mm-hmm. sëriñ Tuuba radiyallahu anhu li mu def rek la ko yàlla fay safar gi 18 safar gaa màggal ko wax naa ne safar yi baax na parce que bu fi amuloon lu bëri dana am safar pour yooyu ñuy def ci réew mi baax na ci réew mi ku xamul na xamul te xamul xamul waaye safar yi burdu yi baax na ci réew mi parce que indiwuñ lu dul xasida Serigne Touba te sëñ Tuubaa yàlla la way yonent bi yàlla yàlla yonent bi loolu nga di ko jollil di ko jollil di ko jollil ba màggal ñëw ñu dem ca màggal ga di ko jollil di ko jollil ba màggal paase ñu dem ci événement samdi yeeg dimanche di ko màggal loolu moo téye réew mi bu du loolu réew mi kenn xamul fu mu jëm ndax ñun li ñu li ñu def maar d'Italie ah, li ko yàlla feye nag moo di yàlla dogal na jóge na fi jaar na ndar ñu defe ne bu demee foofa danaan wéy li ngeen bëgg rek laa bëgg ba mu demee ndar mu ne la ma waxoon laa wax rek ñu ne kii day font rek jàllali ko ndakaaru indi ko mu jàkkaarloog bato bi ak géej bi mu ne la ma waxoon laa wax rek dugal ko ci batam Sëriñ Tuubaa di dem taqalikoowul ak yàlla taqalikoowul ak yonent bi parce que am na koo xam ne suñuy coow di coow di coow bañ jox leen plainte rek tàqalikoo nañu seen saw hmm. waxoon dañ ciy génn waaye Sëriñ Tuubaa moom mbiram dafa doy waar tàqalikoowul ak sagoom tàqalikoowul ak yàlla tàqalikoowul ak yonent bi ba mu dugg ci biir batam bi mu duggee ci bato bi itam euh, ndax waxoon na ne du ma tooñ sama morom du ma tooñ sama borom. Mm-hmm. bi mu demee ba ci biir bato bi julli jot tubaab bi ne ko yow xanaa du jullit. Mm-hmm. mu ne ko lu tax mu ne ko julli jot na di mu ne ko yow kañ nga julli kañ nga nekk jullit bay nodd. waaw kañ nga nekk jullit bay nodd. mu ne ko ana nodd mu ne ko ah xam le waxtu julli nodd la de. da koy bàyyi ma rek yow koy sànni ma rek nga fas yéene. sànni gi ma waaye ba maag yàlla ak yonent bi rek ba julli jotee sëñ Tuubaa jël sa der bi mu yoroon teg ci géej bi gis nga ñi koy weddi jaruñoo tontu mm-hmm. parce que la mu toog muy bato ba lu tax déegul nit ko defee gaal yi ci géej gi nit a ko defee kanaari yi nekk ci ndox mi nit a ko defee eh, mais yàllaa ko defee te yi dañuy fii ci ndox mi damay dem benn bis ndar euh, ma dem ba ci tefes gi may julli foofu julli ba sën ma toog nii di xool rek seen benn kanaara mu naa nit yu ndox mi di fay rek dem ma ne seetal lii rek kanaara amul xelu nit amul jomi nit mu fay nii ci ndox di dem di dem yoonam kon kay sëñ Tuubaa euh, dem na dem na ci géej def na lii yàlla def nag bu su jootee rek sigi jë bi taxaw suuf foofa nag la tubaab bi jaaxle ci julli ngeen julli ci kii mu ne ko léegi dañu dem te nga bàyyi li nga doon mu ne ko dem tukki bi dañuy yegg tukki bu matu sërice bi du mat il faut sërice bi mat tukki bi mat te tukki bi mat sërice bi mat ñu bàyyi ko mu dem di dem di dem ba ñu yeggee lu nu ko wan loolaa ko gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu nu ko wan rek lu tax ma ne loolaa gën a bëgg yonent bi loolu su jóot ci kanam sëñ Tuuba wan ko ne ko maa ngi bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw maa ngi dof nag man nit lay waxal waaw ngi yow bokk sëriñ Tuuba ñoo bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci gaynde gi ba ñu yeggee gaynde gi fa man tëkkun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu l usdu fi ajaamiha tajimi dañ ne ku su yonent bi di sa ndimbal nga gëm ko boo dajee gaynde gaynde gaynde waaye yow doo daw xanaa ko ndikk dikk na gaynde gi jébbalu euh, biñ demee ba jaxle daal ñu ne ko daal gis nga li bëgg nañ dem nga ñibbi mu ne pare ngeen ñu ne ko waaw mu ne pare ngeen ñu ne ko waaw mu ne assuré ne bañ jël see Sénégal ñu ne ko nag da ngay mën a toog jur mu ne leen yéen di la ma waxoon tey laa gën a wax du ma dellu ginnaaw mukk baa dootu gis nga moo tax wàllu yàlla bu ci dellu ginnaaw mais wàllu àdduna dellu ci ginnaaw parce que wàllu àdduna nit nga ko seqal te ñu mën na laa sacrifier bu dee wàllu yàlla nag yàlla nga ko seqal te yàlla du la fii moom moom lépp moo tax moom moom lépp ko du la sacrifier moo tax wàllu àdduna gaawal dellu ginnaaw bu dee wàllu yàlla bu dellu ginnaaw mukk mu toog ne ci li mu ne ci li mu ne ñu koy yóbbu fu ne di ko yóbbu fu ne fu ñu dem rek mu li ko ñor rek mu ngi koy def fu ñu dem rek mu julli fu julli jotee mu julli ñaaraak bu jullul mu nga yor kaamil ba yoru kaam mu nga yor kurus ga waaw bu yoru kurus ga mu ngay naafile lii rek la nekk ñu mujj nag muy client boo xam ne fuñ koy fuñ koy yekkale lañ koy gisul parce que oto buñ ko bëgg a yekkale nga ne doy na waaw man kii àttuma ko fuñ ko bëgg a yekkale nga ne man baax na waaw daal duma ko jël ba mu ba ba mu mujj nekk jurwet tukki boo indiwul serite matu tukki ci bi Serigne Touba indi nag mooy màggal gi gi muy sëri ndax ba muy dem def ne maa ngi dem waaye pour del seetee na ma ko màggal waxul màgg santal leen ma yàlla la wax na ngeen ma santale yàlla parce que xam naa ne lii ma yàllay defal néew na mu di ko defal nit kon santal leen ma yàlla mu dem di foofu lañ xamee ni góor gi kat daa mel dana ñëwaat mu ñëwaat at mu jot ñu santale ko yàlla mu ne leen ganaar bëy xar nag gëléem lu ci waaye am na ko rendi bu ko rendee na ko togg su ko toggee ba mu ñor mu jox ko ay nit ñu lekk buñ ko lekkee nañ ma santal yàlla foofu lañ xamee ni sëñ Tuubaa jàngale sant sant yàlla boo lekkee ba pare nga koy def julli baa nga def ay salaatu ala nabi baa nga def astaxfurlaa santaliku sëriñ Tuubaa ndax itam nag li ko yàlla defal dafa jafe dugg ci géej gi julli ci géej gi waññeeku ci géej gi ñibbisiwaat mel na nga meloon am na nga amoon am ambition bi nga amoon xam nga ni réeroo ak yàlla réeroo ak yeneen ci bu réeroo ak ñoom doo am loolu yàlla nee ñu dañu ko fay lu lu lu tolloog ñaari fay ci li nga xamante ni moom mooy màggal gi nga xam moom la ñu dëgmal ndax bu ngeen xoolee euh, le 4 bi nga xamante ni moom la dëgmal septembre mu war a nekk li nga xamante ni moom mooy euh, màggal gi ci ëllëg si mu war a nekk la 5 septembre di tombeek li nga xamante ni moom mooy ñaar rakk yi nga xamante waroon nañ ko amal fële ca Ndar te chaque année ñu koy amal ren mu tombeek li nga xamante ni moom mooy euh, màggal gi mu nekk maanaam ñaar yoo xamante ni ci mën naa ni intervalle même pas 24 heures la war a amee waaw loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy manu yàlla rek manu manu yàlla moo mel noonu te nitu yàlla lu mu def bu desee day niroo sëñ Tuubaa du Iran du Amaat du Modou sëriñ Tuubaa la muy sëriñu Tuubaa waaw kooku da doon jaayante yàlla gis nga li mu jaayante bu ko jaayantewuloon li ngeen am di ngeen ko am kon li réew mi am duñ ko am mukk waaye li mu jaayante moo ko may intervalle boobu am matum ñaari waxtu wala matum ñetti waxtu wala matum ñeenti waxtu su ko matoon sax sëñ Tuubaa mel noonu ñaar ndar te ndar lañ ko lañ ko lalee pexe mi yëpp fa lañ ko lalee ñaar ak ay dellusiwaat dajeeg màggal gi sant yàlla sant yàlla la niroo ànd na la niroowul àndul waaw mais du ñu génn foofu lu dul ñuy ñëw ci li nga xamante ni mooy nu ñu war a comporté woo fële ca Touba ndax dinañu dégg ñu ne foo xamante ni da nga fa war a defaroo boo fa yàqoo li lay defaraat du yomb kon loo ñu mën a baaxee ci loo xamante ni foofu noonu lañ fa war a mën a taxawee noonu lañ fa war a mën a comporté woo ci ñi nga xamante ni mooy ba si suñu baal ma jigéen ñi dem solo ko si meew ko rek ah ñi nga xamante ni dañoo dem pour def ñaawteef ñi nga xam ñoom ñooy agresseurs yi di rocci poos jaamur yi nga xamante ni dañoo ñëwoon pour jaamu si yàlla dañoo ñëwoon pour matal li nga xamante ni moom la Serigne Bamba buggoon ci li nga xamante ni moom mooy yàlla kon la nga wax ci loolu waaw xam nga nag ñi gàmm ak ñi raajeem du benn <laughs> ñi dañoo ñëw pour gàmm ñi ñëw pour raajeem ñii raas kenn mënu leen cee raas waaye ñii màggal kenn mënu leen cee màggal màggal gi eh, na ñëpp dem Touba wax ji wax ji wax ji na ñëpp dem Touba fekk fa sëriñ mun taxa mu teeru leen dalal leen gunge leen fa ngeen yeggal ñibbisi xam nga jigéen ñeeg xoolal ki sol Maymuna sama doom xam nga nekk ni ma ko <laughs> xalaatu ko faa yóbbu. te xalaatu ko faa yóbbu. <laughs> fii la ko mën a yemale. Hmm. xam nga lii kenn du ko yóbbu Touba. ak yeneen góor ñi góor ñi def seen bopp yi ay rasaak. ay ay ay létto ay ay ay ay lu lu ne ñu def ko seen bopp yi. Hmm. parce que bërëb bu màgg boo fay dem da nga koy màggal. te da ngeen ko bañ ba ne màggal gi mm-hmm. màggal kuy dem dangay ngay màggal soo demee da màggal bërëb ba màggal borom bi waaye ndax dangeen bañ ba ne màggal gi mm-hmm. màggal kay da ngay màggal waaye du meeloo tuutal mm-hmm. ku dem da màggal waaw màggal gi moo am solo solo lu yiw solo lu rafet solo bul solo solo ko summi sax baax na waaye na yiw ni yiw rek nan li ngay sol yiw li summi na yiw melal nu yiw rek waaw mel mel ko melokaan wi ne yiw su melokaan bi yiwee rek baax na sëñ tuubaan nag yóbbu foo dem foo xam ne dañ fay deferoo far nga yàqoo fa am njëriñ ana ko lay defarati fañ waroon a deferoo ko fa yàqoo dootoo dootoo dootoo jekk jamais dootoo jekk ku lay defer fii nga waroon deferoo nga ñëw foofa yàqoo fa léegi nag boo ko oto ko man man mécanicien moo koy defer amul mécanicien bu ko defer parce que fi nga waroon fi nga deferoo fi nga yàqu kenn du ko defee donc loolu dañ ko war a bàyyi xel dañ ko war a bàyyi xel nit ki fa mu waroon deferoo bu fa yàqu dootu deferoo kon nag nañ dem Touba euh, respecter directive yañ fay joxe respecter ña nga xam ne yor màggal gi respecter ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ dénk màggal gi kenn ku ne buñ ko respecté rek mu baax waaw ñuy respecté lépp dëkk ba itam ñu fonk kuy dem demal ak yar ak teggin dem col gu yiw dem melokaan bu yiw su ko defee nga jubóog waa dëkk ba jubóog dëkk ba borom di nga yiw gi ñuy wax borom dëkk baa bëgg ku yiw waaw tuubaa li abdin muridin saadiqin yàlla tuubaa li abdin muridin saadiqin lahu moom bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin waaw xanaa koy jaamu yàlla doo def doo ko def de Ah, danga sol lu baax di kuy jaamu yàlla danga def sol lu baax kon tuubaali abdin muridin nag ku ku yàlla ñor koo xam ne dangay ngay wuuti yàlla acca li abdin kuy jaamu yàlla acca waaw saadixin ku dëggu itam acca waaw ku dëggu acca ñu yaakaar que ni du du du du dugg ci nopp ki tëx kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp bu fekkee sama naataango yi nga xam ne ñoom naa jàkkaarloo bu fekkee am nañu question ci li nga xamante ni moom mooy safar gi nga xam ci la ñu nekk ñu dugal ko bu fekkee amul tamit ñu enchaîner ci li nga xamante ni moom mooy deuxième partie bi voilà kon ñu ñëw ci li nga xamante aha ah. waaw mu ñëw ci li nga xamante moom mooy comportement Baye Fall yi ndax ñuy gis yenn vidéo ci yi nga xamante ni comme man sama genre yi nga xam dañuy watoo nu mu leen neexee jigéen ñi di lettu ci nu mu leen neexee ñu jàpp leen di leen wat mbaa di dagg li nga xamante ni moom mooy seen lett yooyu lan nga ko gisee. ah bañ nañ ko bañ a lettu rek <laughs> buñ ko lettu luñ ko dagg de ko bañ a lettu bañ koo dagg. nee naa la ku yiw rek ku yiw rek ku yiw rek demal ku yiw ci nga bokk. parce que borom wax na ko tuuba li abdin muridin saadiqin lahu moo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin tuuba borom dafa wax lu leer tuuba euh, texe ñeel kuy jaamu yàlla ñeel ku wuti yàlla ñeel ku dëggu ñeel na ko sopp ñeel kuy joxe àddiya voilà kon ñooñu ñooñu lañ fa soxla waaye waxuñ dégradé ñuy dagg sa bopp beeg di dagg sa yaa ko def ba nga xamee ne parce que Touba teel nañoo averti nit ñi teel ñoo wax ni bëgguñu fi lii yow ngay jaay dëgër bopp di fa yóbbu loolu ñu ne kuppet waaw kuppet lañ koy def jeex na waaw ah <laughs> que sax titre foncier la ndax bërëbu Serigne Bamba moom moo moom foofu nga xam ne waa ji dama ne ah. titre foncier fu du titre foncier ah. ñoo yem kuy woote màggal daal te màggal gi di lu leer mu wax ni Eh, kuy ñëw melal nii nga ñëw meloo noonu loo gis yow yaa tooñ jàmbur la rawatina di titre foncier ko ku fay dem danga war a mel ni borom dëkk bu bëgg waaye yiwal kay baax na yiwal yi kay yiwal yi moo bon waaye yiwal baax na hmm? ki la ne yiwal sa jàmm la bëgg parce que boo yiwee ku ne nga mën a dajal man ngaa seeti yonent bi man ngaa seeti sëñ Bamba man ngaa seeti Alaaji Maalik man ngaa seeti ku man ngaa toog moom waaye boo yiwadee manoo seeti kenn kenn bo bo bo kii tey kii li mu sol nii ah xam nga ne ni ñu wax li mu sol rek li mu sol nii tey bu daje woon ak eh, eh, sëñ Saliou bu ñu doon sëñ Saliou dafay ñëw wala sëñ Sidi Maxtaar wala sëñ eh, Muntaxa bu ko déggee day làqatu parce que lii nanguwul mu gis ko waaw day day làqatu waaye bu fekkee nag dafa sol lu yiw dana uy mm-hmm. mu ngay daw mu ngay buuxante pour gis ko waaw lu yiwa mel noonu waaye lu yiwa di moom ñenn rek ngay nangu gis ko xanaa ñi ñi ñi yiwa di ndax yow walla ñàkk pexe ndax ñi di ndax yow wala ñàkk pexe ndax yow wala ñi lay seetaan xam ne jamono noonu la demee voilà moo tax Touba moom kuy dem rek yiwal soo ko deful ah <laughs> soo ko deful dëbbukaay yaa nga fa de dëbbukaay yaa nga fa. te Baye Fall foofu ñu waaw ñoom bu ndigal ñëwee jeex na xanaa bu ndigal ñëwul waaye bu ndigal ñëwee. jeex gisatuñ kenn boroom ndigal li rek. Hmm. ndigal jëfe lañ wax ndigal jëfe ndigal jëfe hmm. waaw yow ci dëkku jàmbur kay defal liñ bëgg rek hmm. soo ko mënul nga toog moo gën waaye naan man bu ma demee bu ma ku ma fay. laa ilaaha illallaah bu la Baye Fall ñu dóori seen kuur yi ba bàyyi la. da nga xam ne yàlla yàlla yàlla jul la santaan waaw kon ñu ñëw ah xaaral waaw waaw ah. diine nanguwul lu tax nga musóoru de de loo def ci bopp bi kay laaw gannaaw ñoom dañuy seet ñi ñëw ni ñu mel yow nga ñëw ak sa bopp dañuy dañuy dañuy tas musóor bi bu fekkee ni waaye bañ a nangu boo demee hôpital boo demee hôpital tey kooku feebar bu ñëwee duñ tas bopp bi am nañ koy faj ci ko musóor gi duñ ko faj ci ko musóor liñ fiy bañ ci tuubaa dañuy seet ndax loolu nga def wala defoo ko soo ko defee ñooy la dindil soo ko deful ñooy la baal merci sa musóor nga waaw ah. hôpital itam boo demee tey indi sa musóor euh, docteur bi sañ na ko dindi du ci am bàkkaar du ci am dara parce que du ko dindi faj la yéen yow yow mii wax lii nag yow mii yaa nar def loolu nag waaw yow mii yaa nar def loolu waaw waaye boo ko defee da nga daje borom kuur yi rek kuur yi moom ah, ñëpp la fi nekk euh, Tuubaa moom dafa leer dañoo wax lu leer ku fi ñëw ñëwal ak yiw loolu doy na. surtout que sax bërki démb euh, sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te weer def na benn déclaration di wax ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg tëralee li nga xam moom mooy màggal gi woone ñëpp woone jullit yëpp ndax du ma wax muriti rek du ma wax tijaani woone ñëpp ne nañu ñëw ci dal nañu ñëw ci Serigne Touba ni mu ko bëggee woon bu ñu ñëwee nañu jublu ci li nga xamante ni moom mooy xasida yi alxuraan beeg lépp loo xamante ni moom noonu la ko bëggee woon rek incha allah ñu nekkee ci loolu. waaye loolu mooy dëgg mm-hmm. loolu mooy dëgg di mm-hmm. tey moo fi sëñ Tuubaa lu fa ñaaw moom lañuy waxal lu fa rafet moom lañuy ñuy waxal kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi kenn ku nekk ci yéen sàmm la sàmm bu nekk danañ ko laaj la muy sàmm fu mu jëg moom gannaaw moo yor Tuubaa mooy sàmm Tuubaa mooy sàmm taalibe yi da leen di wax li yàlla bëgg pour bu ëllëgee moom a wàccoo moom wàccoog ñoom li yàlla bëgg daal comportement bu rafet yiw la Serigne Touba bëggoon ñu mel ko ñu mel ko su ko defee Serigne Touba kontaan waaye yow ni Serigne Touba nga yaakaar nga mel melokaan woo xam ne ku ku yaakaar Iran sax du ko mel waxuma la ak Serigne Iran rek boo ko yaakaaree xanaa waroo mel noonu waxuma la nag Serigne Touba nga mel melokaan boo xam ne comme Iran di dof doflu bu ko defee nag xam nga faj moom ñaar la daa am ñoo xam dañuy pikiir eh. di joxe doom ak bomb bu wóom ñii ne kuur lañu yore li sëñ mun sëñ wax leer na niñ bëgg Tuubaa leer na lépp leer na ko ñëpp jëfandikoo mu jeex su ko ñëpp jëfandikoowul dañ fekk ñeneen ñu jëfanteek ñoom boobaa nag du ci ñoom voilà nañ def loolu rek